ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم mbokk jullit yu tedd yi ñuy déglu fi ngeen mën a nekk ci réew mi ak ci biti réew mi ginnaaw biñ sante borom bi subhanahu wa taala ñoo ngi koy ñaan mu wóotuñu jullil ñu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama julli ca moom di ko ñaan mu sax dàkk di taw niiri ngërmande ki niiri yërmande ki niiri leer ak niiri barke ci rawdu mba ak rawdu sawabaam yu tedd yu sell yu màgg yooyu doon ko jàppale te di ko soutenir ci ab wootem waaye ñoo ngi koy ñaan loolu mu dotti ko ci rawdub Mawlana Cheikh Ahmad Tijaani radiyallahu anhu ak i soxaabaam ak i xulafaawam ak i yépp ñi fi des mu yàggal leen dolli leen te dooleel leen te tënk ñu ci njub ñu ngi nuyu képp kenn ci yéen ci turam ak jëmmam ci xaalam ak ci maxaamam di yégal ku ci nekk ci yéeguwaayam di leen jox sunu loxoy xol di sukk seen roy nuyu leen nuyu wu sell muy nuyub lislaam di ñaan yàlla li mu dexeñ ci nuyu bi di jàmm ak yërmandeeg barke mu labal ci sunu mbir yépp ci barkeb yent bi sallallahu alayhi wasallam ak ci barkeb sahaaba mi waaye ci gannaaw loolu ñoo ngi ñaan yàlla mu fayal ñu Mawlana xalifatul xaaji Muhammad Ñas radiyallahu anhu mi nga xam ne waxtu wu ak jamono ju ñu ngi beesal sunu xol di ko yeesal beesal suñu cofeel ci gannaaw Mawlana Cheikh Ahmad Tijaani radiyallahu anhu waaye tënk ko ci njàngalem ci am daa yi nga xam ne mu ngi koy tagg Seexu Tijaan te ñu ci bànneexoo sunu xol ak sunu bët mbokk yi sunu waxtaanu tey ak yéen mu ngi jëm ci lenn ci garanti yi nga xam ne Mawlana mamam rasulillahi garantal na ko ay taalibem yi nga xam ne dañoo jàpp wirdaam wi di wirdu tijaan atariqatu atijaniyatu tariqa la boo xam ne yenent bi sal allahu alayhi wa sallam moom moo ko jox maolana cheikh radiallahu anhu ci ndigalu boroomam laata mu ko koy jox am ay garante yoo xam ne moom la ko garantel ne ko képp koo xam ne jël na tarixa bi sax ci te matal sarta ya garanti yooyee ñeel na ko garanti yu bari la nag yu naxare jeexal sax waaye boo delloo ci kutubu tarixa bi muy téere yi nga xam ne ñooy jàngale ci tarixatu tijaniya nga jiital ca jawahirul maani wala nga dem ca rimaax wala sa buxiyatul mustafid ila axir yi da nga gis lenn bu ci nekk ci ñoom dana indi ci garanti yi nga xam ne yenent bi daf koo garantil taalibib tijaan bi wirdo wirdo tijaan ak garanti yi nga xam ne dañ ko garantil ki sopp cheikhu tijaan képp yem ca tajalu tarixam te loolu ku dem ci jawayrul maani dalee ca xatum téeméer ak juróom-ñett jàpp téeméer ak juróom-ñeenti di wàcc da nga ca gis lu la doy lu sedd sa xol naka noonu it ku dem ci rimaax bu Mawlana Cheikh Omar Fuuti ca xatum ca paas bu xaaj bu mujj ba wala lu ko jege da nga ca gis lu la doy garanti yooyu nag dañuy sukkandiku ci leeral gi ak fàttali gi ak sonnee gi ak bànneexal ci sunu xol bégal ci mboolem taalibib tijaan sukkandiku ci jàngaleem maam xalifa ñas radiallahu anhu ginnaaw bi ma la joxoñee téere yooyu ma joxoñ la ne boo ci dem ci ñoom lii may bëgg indi muy lenn ci ay garante da nga gis yenn yi wala danga gis yépp ca téere yooya parce que Mawlana Aji Muhammad Xalifa radiallahu anhu moom day naqulu ci téere tarixa bi njëkk bi donte am na loo xam ne dañ ko koy xamal xamal goo xam ne digganteem la ak boroomam bi mahabbati Mawlana Cheikh radiallahu anhu mbokk yi garant yooyu sunu koy lim du jeex waaye dellul ci jawahir ci ñaareel ba fu muy jàngale فصل في فضل ورده وما عاد الله للتالي وصفة المريده وحاله وما يقطع عن عن عن عن, عن, عن أستاذه غيركو دانا لا تي واخ لولو دوي وهو ما صح طالب شيخ تيان بي ويدو طريقه بي مي كي سوب مولانا شيخ رضي الله عنه دانا تا فك لولو دوي ñun nak suñu jangat ci garanti yooyu yi ñu ci indi tey ci bànneexale ko sunu xol sukkandiku ci jàngaleem maam Khalifa Niass radiyallahu anhu góor ak yàlla gi nga xam ne lu mu wax ci tarixa tijaan ñu bàyyi ko ci lu wax ci sharia ñu bàyyi ko ci ndax xam-xam baa ko matee ak njub ga ak sell ga ak roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maam Khalifa radiyallahu anhu dafay jàngale ci biit jàngaleem ci benn nuunu ye boo xam ne baxaru bu baxaru bi kaamil la dafa mat sëkk di ca tagg sëriñ bu mat bii di Mawlana Cheikh waaye tarixam bu mat bii nga xam ne mooy xayru turuqi xayru shuyuqi dahri bil itlaaqi imam min attijaani sul alaaqi wa xayru kullu turuqi bil ijmaaci tariquhu aydan bila nizaaci la bàyyi soxoon loolu mooy sëriñ bu mat bi ak tarixam bu mat bi bu ndar képp tarixa yi maam xalifa daa wax ca biir ne benn nuuni ya di daanil falaahi ila tijaani daani fa wal xiyaasu adiliya daani ne aji woote ji jëme ci texe woona ma man xalifa jëmee ma ci marana cheikh ñu déggee ci ne comme aji woote ji moom lii lii micca mooy woote rek te comme woo ci texe la la jëmee comme ci marana cheikh la ko jëmee kon marana cheikh mooy jëmmi texe xasida boobu nekk nekk ñeent fukki bayta ak juróom-benn mooy limab waliyu mooy yubbadilu hit ulaika yubbadilu law seyatim xasanaat lu baree làq ci biir xasida bi maam xalifa liggéey ko ci ama samsin muy atum jant mu am yeneen isaaro yu muy junj mu am lu ma soxla ci biir xasida bi pour ñu waxtaanee ko pour ñu càmbaar ko pour ñu bànneexal ci suñ xol mooy dafa wax ne sayidna cheikh radiallahu nekk na ci moom ak ci tarixaam bi fiihi shahaadatu wal wilaayatu wa tuqaa bi damaani tooxa Mustafa al Adnaani ay garanti yi nga xam ne yent bi sallallahu alayhi wa sallama moo ko garantal Mawlana Cheikh bokk na ci ak texe am ak wilaayatu am ak ragal yàlla gu sax dàkk mu bi la mbooleem bunt yi nga xam ne jàmbi daf koy fëgg ci boroomam jàm bi su amee ragal yàlla gu mat sëkk mbooleem bunt yum fëgg ci boroomam bunt mu am ko moo xam bunt yi lu mu mën a doo ci mbolem yiw yi yàlla di joxe parce que ragal yàlla moy caabi ji nga xamne moy ubbi buntu yoyu wa taqullaha wa yuallimukumullah in tattaqullaha yaj'al furqana non nga koy topé ci alquran bam jeex ta rak tariqa bi garante la ci taalibe bi fi saadatu wal wilayatu wa tuqaa nak bid damani toha Mustafa al Adnaani maana cheikh radiyallahu anhu bokku na ci point bi ma bëgg a waxtaanee tey mooy tariixam bi gannaaw bi mu nekkee garante ci ak texe ci ak wilayatu ci ak ragal yàlla nekk garante ci dee ci liimaan nekk garante ci ay tëbb yoo xam ne dafay bàyyeekoo ca yenent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyeekoo ca péyeb yàlla bu sell ba di dotteeku ci mawlana cheikh mu koy taataan di ko tëbb ay taalibim wa huwa alladi bi hulumihi wa bi sirrihi qad maddahu min faydihi larfaani wa huwa alladi kafala almurida bi dallatin wa ajaarahu mawlaahu bil xufraani noonu ngay toppee noonu ngay toppee garanti yi ci garanti yi nag tariqatu tariqatu tijaaniya garanti la ci am maarifatu billahi ci taalibe bi nga xam ne mooy wirdo wirdaw cheikhu tiyaan mbokk yi pour ma ñëw ci maam xalifa radiallahu anhu ci jàngaleem ak mbindam ci baat yoo xam ne dafa ñuy indil tarixa tijaan nim nekkee gaarant ci taalibe bi pour mu am irfaan muy maarifatu bila te loolu yonent bi garant ko danañ joxañ danañ jukki ci mbindam xalifatul xaaji muhammad radiallahu anhu waaye danañ jukki ci mbindam Mawlana Cheikh Omar Foutiyou pour loolu ñu def ko dalil ci li Xalifa di wax radiallahu taala anhu waaye yépp mën nañoo génnee ji dalil ya ci waxu Mawlana Cheikh Ahmad radiallahu taala anhu looloy lan Maam Xalifa radiallahu anhu day jàngale ne ina nabiya rasulullahi daaminuhu litabi'ihi wusulan minhu bil madadi yenti bi saw sallama mo garantal ma na shaw de laandu moko garantal ay talibem yegg yegg go xamne dañ ko yegg ci yalla yegg go xamne yegg go matale lay don gu mat seuk mu wax fenen ne kam na la ruyan من العرفان وارده دانانتي ديك بلا مكابده ولا معاناه موغفين يسقوا بهمته كسل معارف من ينمى الى ورده شافي لكل صدى او لكل صدي وعرفنا ان وصحبه ضمن الحاضي لهم ابدا نيل الكمالات محنى للفتوحات بوكي tarixatu tijaaniya garante la ci taalibeb tijaan bi mu am maarifatu billahi gu wér kakk yegg ci yàlla yegg gu wér gu matale waaye nag ànd ak loolu yépp maam xalifa nee na waraaxi shuruta sheyqi fil wirdi annaha yunaalu biha almawudu fiha bi minnati maana chamar futi yu radiallahu dafa wax mu ne bi muy càmbaar ci tarixa bi ak yi ak ngëneel ya ñëw ba ci walla siina amano wattabaatum suriyatum bi imanin alxaquna bihim suriyatihim dafa ne wa bi fahmi hadha alkalam aidan yazharu dana ci feñ waxi manam sekkareb waxu yunus bi sallallahu alayhi wa sallam jimne jim wax ñeexal sunu waa tarixa bi يظهر سر قوله صلى الله عليه وسلم لشيخ لشيخ أهل طريقتنا هذه فقراؤك فقرائي وتلامستك تلاميذي وأصحابك أصحابي من فوف دنج خامن ديغنت اصحاب رسول اصحاب شيخ دا فا مناسبه تام بو تي ام فعلم صلى الله عليه وسلم أن بين أصابه صلى الله عليه وسلم وبين أصابه الصديق رضي الله عنه مناسبة تام وبتلك المناسبة كانوا عند الله أكبر من من أكابر العارفين والأخواص سمر فتي من ديجنت فقراء شيخ أكي تلاميذم أكي أصحابهم أكي فقراء رسول أكي تلاميذم أكي أصحابهم dafa am munaasaba bu mat bu matale bu ci nekk boo xam ne ci munaasaba buubu dafay tegtale ne kon kay asaabu cheikh dañoo bokk ci akaabiril aarifina billahi bokk ci maanaam xawsi yi nga xam ne xawsi yu màgg lañ donte wa inkaanoo fi zahire donte boo leen gisee nii dangay ngay fag ne ñoom ak ñëppi nit ñi ñoo xem fekk déedéet ñoom ak nit ñaam yemuñ parce que ñoom ay xaas lañ ak ay xawaasil xawaas ci biir nit ñi loolu nag xewal la goo xam ne subhanahu wa taala moo ñu ko jagleen ma ñëw nag loolu tax da nga gis amar fute radiallahu anhu ni mu yeggee ci yàlla ak ni mu xamee yàlla ak ña ko jiituwoon ci tariixa bi ak ñu ñëw ginnaawam ba ci sun jamono yi ku ne ci ñoom am na foo jaaree ci tariixa bi ba yegg ci yàlla yeggin yi nag ak xamin yi maanaam yooni jaareekaay yam mën naa bari te loolu maam xalifa radiallahu anhu danañu ko jàngal waaye daal tariqa tijaaniya muy bi gën gaaw bi gën a matale bi gën a dëgër bi gën a wér ci yeggin wu mat sëkk wu yomb lool mais yeggin wu wér a wér woo xam ne borom du juum du jaawale du jaxase te du jàllaxe mbokk yi maam xalifa ñas radiallahu anhu nee na Samatiyani Sharif radiyallahu taala anhu moom la yàlla jegleel tarixa boo xam ne ku ci jàpp yëgg ci yàlla xam maarifatu bi te du jànguwanteeg ay coono duñ la xiifal ay weer wala ay xat déedéet duñ la jox ay dog nga koy sikar ba ba far dog yow mi koy sikar doo jànguwanteeg xiifa ki mar mais da nekk nit simple di lekk di naan di nelaw di yewu di def li nga bëgg a def jàpp wirda yi di ko wirda ta sellal ko gën xam képp kuy xam yàlla nga gën koo xam yàlla gën koo yegg yeggu gu wér te doo ci jànguwante ak ay coono mu am xalifa mu nag nee na loolu ci mbaax yàlla la ci ay ngëneelam mu jagleel ko Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu mu jox ko ay taalibeem moo tax mu ne inna nabiya rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam naka yenentib yalla bi bamin hu kuku mo garantel cheikhu tiyan wosolan ak yegge minu gu tukke ci mom bil madadi ak ci ay tebbu li tawabi'ahi ñeexal ay talibem yalla mo garantel cheikhu tiyan manam yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mo garantel malana cheikh radiyallahu anhu ne ko ay talibem danañ am fatu akbar te mooy yegg ci yent bi yàq satan bi laa mën a man waaye danañ xam maarifatu billahi goo xam ne dara du ca maanaam dara du ko rax maam xalifa radiyallahu nag nee na loolu bari na de bu amee ñu teg ci suñ bët ñépp gis ko xam ko ci taalibe maana cheikh yi nga gis ñoo xam ne dañuy fees tepp ak maarifatu bi fees tepp aki aki aki aki anwaar aki asrar yegg yegg gu xam patu xam kasfu boole koog li jaabaaki xabul te amee wuñ ko fenn lu mooy wirdo laasim subaak ngoon wasifa ak sikar ci àjjuma sellal ko rek kam naa la ñu ne ko xalifa bindal mu ne kam naa la riyan min al arfaani waaliduhu kam naa la bari na bu mu amee riyan ak mandi minal arifaa ne ci maarifatu billahi kan moo ko xam waariduhu kam naa bari na bu mu amee ki am kan la waariduhu aji wirdo wirdaw lan la xam ak mandi ci lan minal arifaa ne ci maarifatu billahi ko amee mu ne bilaa mukaabadatin wala muanaati jànguwantewut ak ay coono jànguwantewut ak ay jafe-jafe ak ay mitti maanaam yoon yi ñuy jaar moo wute am na koo xam ne pour mu yegg ci yàlla dana woor bay bëgg a dee dana naafile bay bëgg dee dana jàng alxuraan bay bëgg dee dana xiif dana mar dana def ay xalwa doo ko yëg parce que bakkanam toll foofu am na koo xam ne pour mu yëg dañ ko jox ay dog dana sikar bay bëgg dee ñu koy defal taxal lii di ko defal taxalli di ko defal taxalli ba mu set ñu dog koo defal taxal lii ba mu ràngaayoo jikko yu ngërëm yi ñu dog koo nag fëggal bunte péeb yàlla bi mu jàll am na koo xam ne dégg maam dafay yegg yegg goo xam ne bilaa mukaabadatin wala muanatin maanaam yooyu yëpp du ci jàngu wanteeg dara dara sun moo koy tànn jës ba ko yóbbu ko ba mu bokk ci tànne loolu maam xalifa radiallahu taala anhu ko jàngal te danañ ci yàlla ni ñuy yeggee ci moom mana da wute ci wute talibe yi me ci wute yi way yeggal yi moy mooy ci waaw fa ba'dhum fi sulukin tahta tarbiyatin wal wudu fi jasbi yarqu daa'ima yaqbi لكن مراعاة شرط الشيخ أسرع في نيل الفلاح ففيها منتهى الأرب ليزال mu ne yegg gi ñu yegg ci yàlla ay façon la maanaam dañoo dañoo dañoo gën a gaawante am na koo xam ne pour mu yegg ci sulóoki dafa dañ koy defal sulook jox ko ay dog yi muy sikar di sikar di sikar ñu koy defal taxal lii paree ñu koy defal taxalli ba xam hinaayatul ilaahi ñu jas ba ko mu yegg ci péeb yàlla bi wal baadu fil jasbi am na koo xam ne nag du jaar foofu du jaar ci benn coono yàlla moo koy jas bu ci mbaaxam gi yóbbu ko yéegal ko wa baadu wal baadu fil jasbi yarquwa yàlla moo koy jas bu yéegal ko yow yégee ko ci boppam muy beneen dégg nga léegi nag ñooñu duñu tolloo déedéet duñu niroo déedéet ndax seen naanuwaay waay moo wute maam xalifa waxaat ñu ne loolu si ngeen ko gisee day na xam ne naanuwaay waay ñoom seeni naanuwaay waay moo wute mais ki leen di nandal maanaam géej ga ñuy tànqee genn la mu géej ak Seexu mais ñay tànq ñoo wute ña ñuy nandal wute waaye nag ki ménguu mbir yi di ko doxal kooku moom Mawlaana Seex Ahmad Tijaani Sharif radiyallahu taala anhu moo tax nga dégg muy wax ne سيقنا يتولى كل تربية حنسوها بمدى الأيام والعقب من كان يبقي وصولا في طريقتنا فليترك قلق سعريا بلا عربي وليس بصدق والآداب إنهما لا يوظلان إلا العليا بلا تعب إلا عليا بلا تعب من الصبوبانك نغا أندك دقو teggin yi maanaam teggin yi péeb yàlla bi ndax soo àndeek dëggu ci ki nga ko ci ginnaawam gi muy Mawlana Cheikh làmboo teggin yi ñaar yooyu la yuuxalaa ni daf dañu lay yeggal jëmee la ci kawe ci am maarifatul bidaa te doo am benn coono mu ne nag ki nga xam ne jaarul ci yoon wii yàlla yombalalut ko mbir mi ba mu mën a dem yegg-yegg gu wér te du am benn coono te du am benn jafe-jafe ndax pour mu dem faw mu xiif faw mu mar faw mu woor faw muy naafila guddi faw mu ràngoo ay coono faw mu sikar ay dog bay bëgg a dee doo ko yegg mu ne kooku bu mu wax ne fi ma jaar nii àgg ko fa jaarut doo yegg déedéet wala taqul xayru ma qad niltahu kadibun mu ne bu su boobaa fa anta izaka axra naasi bil bi mu ne yow soo waxee ne fi ma jaar yegg wala li ma def ba yegg wala li ma mos ba yegg wala li ma wirda ba yegg wala ki ma ba yegg ku ci jaarul yeggoo ma ku ci jaarul sit lu mu wax du noona donte la mu wax dëgg la waaye comme bokk leen fi ngeen ko jëlee du noona maam xalifa ne su boobaa yow ci sa bopp yaa gën a yeey nit ñi ci ay kàcc ndax yow kenn mën a wax dëgg nit ñëpp juum te yegg gi da ko fee fekkoon maarifatu billahi bi da nga ko fee fekkoon ñi la jiitu dañ daan yegg ñi la ji ña leen jiitu woon day yegg ña leen jiitu woon ña leen day yegg ñëw sa ginnaaw day yegg te booba yow xama ko kon nag wala taqul xayru maa xat nil taxoo kasibun bu kenn wax loolu li ma amul rek wérut fi ma jaar ko fa jaarul rek du foofu li ma nga begg ko ci nga bët ba yegg du loolu déedéet am xale fa nee na soo waxee loolu fa anta iraka axra naasi bil bi boobaa yow sax yaa gën a yéey nit ñi ci fen yi ngi di jiiñ رضي الله عنه مام خليفه ياسر رضي الله عنه نانا مصارب القوم شتى في مراتبهم نانو واي غاي يالله دا فا تقلكو كوم سيني درجه سيني مرتبه ووتي كما تفاوت كما تفاوتت الاقوام في الرتب كوم سيني درجه ووتي ني لا سين نانو واي ووتي كوني خمنا ما نشا رضي الله عنه دوندم ci nekkam ni mën a yóbboo nit ki ak ni mën a deferee nit ki ci kam ndax satin min li arwaaxi jaasibatin néew na tolloo wut ak kenn moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam tolloo wut kenn parce que martaba yee wuutee ni martaba yi wuutee nag ci sëriñ ci noonu la nit ñi defaree seen taalibe yi wuutee am na koo xam ne defar taalibe mi naan amoo gën a yomb ci moom naan ataaya waaye am na koo xam ne pour mu defar leen day sonn wilaaya yi tolloowuñ maam xalifa ne kon nag comme nii la demee xusoo nasihata man lam yaxlu nas nusxakumu yaqoosidina sabilal xaqi fi bi waaye waaye jëlal laye biir bii laye biir boo xam ne aji laye biir jëla koy jox du gàttañ lu mukk ci di la laye biir ci lépp lu lay jëriñ yow mi soobu yoonu dëgg bëgg yegg ci yàlla bàyyil xel ne bàyyil xel ne yàlla mbiram yegg gi ci tariqatu tijaan yi ak ci wérde bi loolu yàlla mu ngi ko teg ci loxo Mawlana Cheikh radiyallahu anhu fa sayxunaa yatawalla kulla tarbiyatin ani sohaabi madal ayaami wal xuqubi léegi nag moom Mawlana Cheikh radiyallahu anhu gaayam yi ku ci nekk fi nga toll ci moom rek ak lim la cërale te ñim tànn ñëpp waa gaa lañ de Mawlana Cheikh ñim samp ñëpp gaaye lañ moo tax koo ci desal ginnaaw wala nga xeeb ko rek yow yaa dootul dara maam xalifa mu ne looloo tax nga gis nit ki yegg ci yàlla fes tepp ak maarifatu billah fes tepp bëtam yi du teggeeku ci jëmmi yonent bi sallallahu alayhi wa foo ko fekk mu nga kaw xaras toog ci misaal waaye nag soo ko gisee danga koy yërëm ba bëgg koo jox sarax kam aarifin xafiyat fi naasi rutbatuhu yusqa bi xaysin min al irfaani maskoobu mu ne bëri na aji xam yàlla goo xam ne daa fees tepp ci maarifatu billaah waxtu wu nekk mu ngi naan ci ndoxum maarifatu bi la mu nga toog ca digg géej ak maarifatu bi la ca biir géej gën a nuur te du nukki waaye nag soo ko gisee ci biir nit ñi dara jaam dafa muuru ba kenn xamut ko mën nañ koo gis sax di ko jox ay sarax wala ñu gis ko sax di bëree ba daanu ci kawam wala di tibb suuf di ko sànni fekk moom ndeysaan xaras lay fanaan ni kam aarifin yi fi naasirut ba tuur ndeysaan yusqa bi xaysin min al arfaani maskobu mu ne nag su boobaa yaqaaluhu l jaahilu l maxruuru saa hujubin waa ji nga xam ne ab jaahil la kuréer la xamul fàttu amul kasfu xamul mbir yàlla yi ni muy doxee maanaam dafay foog ne dana ko xor réeram nga ak xoram nga moo koy for mu foog ne waa ji ci borom kiiraay yi la bokk maanaam waa ji yeggut ba sax de mu ngi koy xoo di ko propagande pour jaarale ko fa mu jaar pour mu yegg fekk yëgul ne waa ji moom fa yegguwaay ba moom fa la far ferenkalaayu dëkk fa yaqaaluhul jaahilul maxrulu sa hujbin waaw ah, maam xalifa ne déedéet walay saxan xadratil yowman bi maxjubi te kooku noonu yiruñ ko péyeb yàlla bi benn bis amul benn bis boo xam ne yiir nañ ko ko péyeb yàlla bi waaye yow boo ko fogee boo ko gisee da ngay foog ne ku xamu dara la ku tekkiwu dara la maam xalifa demee demeewut noonu te loolu mu ngi ko amee lan ci jàpp wirdu Cheikh Matiyaani radiyallahu anhu rek moo tax maam xalifa ne loolu nag dafa bari ndax Cheikh Tijaan radiyallahu nit dina yegg ci yàlla am maarifatu billah ci sababu toog ak mu xool la rek walla jox ko loxo rek walla toog jotaay muy waxtaan rek kam laxsatin minhu lil harfaani muusilatin wa dexwatin henda jasbil soow soobi géndeeku rek nit ki fees yegg ci yàlla festep ak maarifatu bi la wala Seydina Cheikh radiyallahu anhu wala rek diw sàngam nga wuyu ko rek mu jës bu nga yegg loolu day waaw ku mën a yegg loolu te jàppagul te te te nag luy sa xalaat ci ki teye ko wér do looloo tax nag ma na radiyallahu anhu yàlla ci boppam moo ko jagleel wa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam garantel ko ay taalibeem yépp dañuy xam ak mat sëkk maanaam bokk ci nekk insaanul kaamil xam fattu gu mat sëkk xam maarifatu bi la te ñu ngi koy amee ci sababu jàpp wirdu Cheikh Ahmad Tijaani radiyallaahu anhu di wirdu suba di wirdu ngoon di wasifa di sikkar ci ajuma te nag matal sortay tariqa bi wa sahbuhu damminal haadi lahum abadan maam xalifa ne ñu ne ko loolu la sahaabay Cheikh Tijaani yonent bi moo leen garantal am mat ca yàlla max naylil futuhaati ànd ak am fathu mooy ubbeeku ak maarifatu billah te nag loolu ñu ngi koy jëlee ci wirdo wi rek luhu xafifun min al awraadi yudilu man qad laasama hahda xaqa lil futuhati Cheikh Tuubaa radiallahu anhu dafa am wirdo woyof muy ñetti téeméer suba ngoon astaxfirullah téeméer salaatul fatihi téeméer wala salaatu ala nabi laa ilaha illa téeméer nga xëy def ko gont def ko wasifa hadara maam xalifa mu ne lool nag ku ko jël ta sax ca ànd ak sarta ya nga matal ko da xam fatxu gu mat sëkk danga nga yegg ci yàlla yegg gu mat sëkk kam naa la riyan min al waariduhu bila mukabadatin wala muanati moo tax mu ne yaa ruba fatxin mubinin naa la tabiahu lakinnama kat katmul karamati yaa rubba fathin bëri na fàttu fatul mu biin la wax nag waaw góob naa la am na ko taabiyan wu taalibey chewatiyaani bëri nañu xam fàttu fes tep xam maarifatu waaye lakinnama darbuhum katmul karamati seen mbir mooy nëbbu ay karama ci yàlla duñ ko feeñal nëbbu seeni karama duñ ko feeñal ndax kat ab waliyu yàlla karama ci moom daa mel ni ab jigéen di jigéen di gis raygal ni mu koy nabbee noonu la koy nabbee maam xalifa radiallahu anhu nee na taalibeb tiyaan bi yàlla da koo jagleel sababu jël gim jël tarixa bi di ko wér matal sarta ya yàlla ci boppam moo wax yent bi sallallahu alayhi mu bokk ci yim garantil cheikh ab taalibam bi ki wirda wirda wi daf koy jox loo xam ne kibaaril awliya yi ak xataabi yeeg axawaas yeeg nujabaa yi ñooñu amuñ ko fekk ñoom bokkuñ ci tarixa bi yonti li zakiri wirdi seyqi maa qasurat an muqtadahu izarati wa ifsahi waaye nag kafaahu faxran wa irfanan wa martabatan an kaana yulfa jalisa al mustafa al maahi asaabu sal wirdi saxbul mustafa koroman